jigéen ñu booyal naanu bay bandinde maam jigéen ñu booyal naanu sama maam jaara jigéen ñi mbooyal naanu bay bëndinde ku jug màggal maam jaara yàlla na nga tàggoog bàkkaar ba set wecc barke borom Tuuba soxna su mag sangoog jug leen màggal ko lépp mooma ñu mbooyal naanu borom boroxa yaa ma maam jaara jigéen ñu booyal naan se mu booyal naan maam soxna jaara maam sox mu taxaa mbàkke jigéen booyal naan se mu taxaa neena bay bandinde ganam li jigéen booyal naan sunu liggéey bi nangu na ji booyal naanu maam soxna jaara maam mi Seex Muntaxa Mbàkke jigéen ñi booyal naanu Seex Muntaxa nee na sunu liggéey bi nangu na jigéen ñi booyal naanu amoo maram maam amoo maam jigéen ñi booyal naanu Seex neena am na xaas yi fexu na si jigéen ñi booyal naanu baawa bandinde sa baal di jaaraama jërëjëfati mam jaara mam jaara jërëjëfati mam jaara ko war el so mam mariama jaara yi karama karama mam jaara mam jaara amoro sa amoro sa amoro ya ko waral sa do rey karama sabal jaara fa mam jërëjëfati mam jaara am maqama jërëjëfati وفر الكلام ما جارا يوسف خيام جارا ما جارا قام مقام مقام مقام يقور يقور الكرام خيام سبال جارا فمام جارا مام جارا تي جارا مام جارا وفر الكلام ما جارا يوم الجنة جارا مام جارا تي أي جنة mam jinne sabal jaara pa mam jërëjëf bi mam jaara harful jërëjëf bi mam jaara jikko mam ma jaara yeme mam jaara harful jime sakal ah, nga waa géej gi ba mu doy sakal nga waa jeere bañ la ilaha illallah yóbba fu joore sakal nga waa géej gi bu sabali sakal nga waa jeere bañ bu gi jël maam bu sabali ba yoo fu joore si bay kan nga bay nga bayoo la ilaha illallah بابا غبي على لا لا كندبي كندبي دندي دندي جيجني بيانو غبي تكلي لا اله الا الله لا اله الا الله takkale la jigéen ñi. soxna jaara jaara soxna jaara jaara. bakki ndimbal ak yar. Seex Muntaxam sëñ Basiru. addina seex. yàlla fi yàgg. ngi la koy ñaan. nee na ku dem ma dem. ay borom ku demul ma dem. baloo yërmande sëriñ Basiru sa baay bilaay yaa fi gën maam bakke du dell ndimbal la ki yar Seex Muntaxam sëñ Basiru yal na ko yàgg ne na ku dem ma dem ku demul ma dem baloo yërmande sëriñ Basiru sa baay bilaay yaa fi gën maam bakke du dell yàlla ki yor jamono taxaam sëñ Basiru yàlla ko yàgg mu ngi la koy ñaan yaa ñu la ko ñaan mu may la ko baloo yërmande la bay samaam Basiru sabaa bilaa yaa fi gën maam yaay borom tuuba